Within the window, within the window, within the window, within the window, within the window, within the window, 20 égale 22. Nagaw. Waaw. Vingt heures sur vingt heures. Eh, del tànk yi bu baax eh del tànk yi bu baax laa wax vingt heures sur vingt heures acca dem leen acca acca eh dem leen dem leen ci beneen sens bi acca vingt heures sur vingt heures vingt heures sur vingt heures vingt heures sur vingt heures vingt heures sur vingt heures après vingt heures après vingt heures bu vingt heures jotee bu vingt heures jotee acca dem leen dem leen jàppal tànk yi silence silence acha acca demal acca 22 sur 20 heures 22 sur 20 heures répétez 22 sur 20 heures 22 sur 20 heures bu 20 heures jotee bu 20 heures jotee acca roule bascule et répétez 20h sur 20h. Vous 20h 20 Vous 20h bu Acha, heures jotee acca répétez

vingt eh, heures da ngeen def vingt heures en bas au lit en haut acca vingt heures en bas. vingt heures en bas au lit en haut. vingt heures. jege si lu nii. tëddleen couvre-feu. tëddleen couvre-feu. tëddleen couvre-feu. tëddleen couvre-feu. waaw tëddleen couvre-feu. tëddleen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. tëdd leen couvre-feu. 20h sur 20h. 20h sur 20h. 20 h c'est 20h. 20 h c'est 20h. Vous 20 h jotin? Vous 20 h jotin? Vous 20 h jotin? Donc vous vous êtes des noctambules.